mbokk Touba ñoo ngi leen nii di leen ziara ci Alioune Diagne la le porte-parole de d'une entreprise de la place fii ci Touba tudd Yande Oil Yande Charles tey nag suñu boroon dogal le 28 novembre 2022 euh, ñu def benn conférence de presse effectivement pour tontu euh, euh, interpellation bu nga xam ne dafa jëm ci sunu entreprise mu Yandé Oil bu Touba di euh, conditionné diw diwu salade benn commerçant bu ñuy wax euh, Modou mbay fii ci marché Ocas def ay accusation yu yu yu gratuite euh, ñu am yéene nag tey ji tontu ko tontu gi mooy dafa wax ne déjà ca tàmbali waxtaanam ne dafa am ak problème soxna maam Xëri Mbàkke entreprise bi ci teewaayu SONDAF le directeur administratif euh, bi nga xam ne moo teew ànd ak adjoint ànd ak euh, section commercial bi yëpp ak comptable yi yëpp ak ñenn ci personnel bi teew tey ji effectivement pour démentir que ni Modou mbay commerçant fii ci Touba ci marché Ocass amul problème ak Mame Khary Mbacké entreprise la amal problème et nous allons vous expliquer fii yëpp jaar ba mu yegg si fii kon yéen journalistes yi yéen yi nga xam ne yéen a jëli woon waxam ñu leeral leen parce que dafa am historique istorique bi mooy moom Modou mbay commerçant la bu daan jëflante ak Yandé Oil yàgg na faa ñëw bokkoon na ci liste ñi nga xam ne da daan jëflante ak ñoom di fa jël diw mais à un temps le personnel la direction s'est rendu compte que ne kii du ku crédible buy fay bor dafay metti ci ñoom ñu supprimer ko ca liste ba kon moom ki nga xam ne moo def forfait bi muy Ameth Lo moomu ngeen dégg muy wax moom moo ko gën a xam yoonu Yandé parce que dafa daan ñëw di def commande mais dañ ko caa génne mënatuloon am diw à un moment mu bëgg diw dem jaar ko ci mu loo boobu la loo ñëw présenté wu Yandé dem ca direction ba ne leen moom dafa soxla mille bi bidons diw à une valeur de 23 millions 500 ne leen bu ngeen ma ko livré fi ngeen ma ko livre bu diw gi wàcce rek ma wàññi seen 23 millions 500 jox leen. mais waxul waa direction ba ne leen diw gi ca Modou may laa koy yóbbu da leen ko nëbb da leen a nëbb intégralement loolu parce que usine bi xam nañ Modou Mbaye il n'est pas crédible su fa présenté woon euh, Mamadou euh, Mouhamed Lo boobu bu ne woon diw gi dama koy yóbbu ci euh, le commerçant bi ma cité léegi du may direction bi boobu la ñuy supprimer contrat boobu du am parce que xam nañ ko bu baax mais da leen a nëbb tur bi ñu def 1000 bidons yi ci ñaari oto oto bu ne ñu def fa 500 bidons ñu dem ba yegg ñu jël déjà ñu personnel bépp a ngi naqarlu suñu collègue boo xam ne sax ci problème bii lañ ko dàqe ci la ñàkk liggéeyam parce que c'était le convoyeur heure bu diw daan génn yow par exemple mën nga dem gis la daaf gis la section économique waxtaan ak ñoom ne leen dama bëgg diw bëgg naa 1000 bidons ñu bindal la tout ce fale fallait muy këyit yi ngeen gis moom mu yor ko mu nekk nii te dinaa ci ñëw suma déclaration li c'est pour vous expliquer fi nga xam ne fii la problème bi jaar bi ñu yegsee ci bitig bi muy bitigu Modou Mbaye ñu wàcc diw gi à mille bidons ñaari oto 500 bidons euh, le le convoyeur taxaw yor tous ces documents taxaw ci buntu bitig bi le euh, le l'escroc qui est en l'occurrence Mouhamed Lo ñëw ne ko sëriñ bi jox ma këyit yi ndax ñoo ngi waññi xaalis bi ci biir maanaam les vingt trois millions cinq cent par confiance ou par négligence ou je ne sais quoi sunu collègue boobu jël papier yi jox ko Mouhamed loo dugg ci biir bitig bi du Mbaye waa ji taxaw ci bunt bi di ko xaar nag da ko nañ 23 millions 500 yi ñu ngi koy compter ci bi mu ko joxee papier yi Mouhamed Lo est rentré dans le magasin jël papier yi jox ko mu euh, euh, Modou Mbaye le gars il est là inerte taxaw ci bunt bi di xaar parce que mu ngi xaar le gars yi vient lui donne l'argent mu toog à un moment donné mu dugg ci bitig bi ne ana euh, moo Modou Mbaye ana waa ji ma àndaloon ma war a jox bi mu ne ko waaj a dem comme ça c'est comme ça que les choses sont passées euh, léegi nag moom li waral mu génn ndax dañu wax ne ndox du bàyyi yoonam c'est-à-dire euh, fecckat du muñ ay tama ce même Mamadou Mouhamed euh, Lo s'est rendu à Dakar ñu koy wër tuubaa kenn gisu ko Modou Mbaye ne dee xam ko n'est-ce léegi ma leen laaj yéen Modou Mbaye lu tax mu daan yàgg ñëw yànde di fa commandé ñu supprimer moom ay commande am ndax il n'est pas crédible mu dem wut keneen nitam à sa place mu dem defal ko commande ñëw mu def lu ñuy wax euh, ndax moom ndeyu sàcc la Modou mbay on l'accuse yànde en question l'entreprise yànde moo accusé léegi nag Modou Modou mbay de receleur ndeyu sàcc la bi affaire forfait bi amee ñu wër ko sunu gendarmerie di ko wër police di ko wër gisuñu ko mu defaat comme li ma wax léegi ne leen euh, euh, euh, ab fecckat du mu du mu ñuy tama mu dem Dakar il a fait ce même forfait à une entreprise de la place à Dakar ñu jàpp ko fa moom sa Mouhamed Lo instant bii may wax a génn moo ngi camp bi ñu ko jàppee ah il a haute voix que ni sa forfait la lii mu def à Touba ci diw entreprise Yandé bi nga xam ne soxna maam Xarim Mbacké moo ko moom te soxna maam Xarim Mbacké signéwul ñoom ak kayit responsable yi ngeen gisoon ñu toog fii ñooñu la signal ce même euh, escroc là a dit personnellement que Modou Mbaye ñoom ñaar ñoo liggéeyoo pour dóor diw jàmbur à une valeur de bi donc kii s'élève à une somme de vingt 23 millions 500 mille léegi nag comme xam ne ni ah je ne sais quoi il a été libéré par je sais pas euh, loolu la entreprise bi laaj parce que ñun nous faisons confiance à la justice sénégalaise ñu bàyyi ko mu ñëw këram léegi nag ka sàcc affaire ba rësal ko ci moom moom wax la ne personnellement ñoom ñaar ñoo ko bokk léegi nag mu ne naawa journaliste yi utiliser yéen leen utiliser leen yéen ci seen xam-xam pour convaincre la masse pour que bu affaire yi yeew yeewaatee xam ngeen la ko cay fekk parce que ndey sàcc bu amutoon sàcc lu am lii mooy histoire bi léegi nag pour notre déclaration ma wax ne tey euh, euh, vingt 28 novembre 2002 2022 pardon 28 euh, novembre 2022 entreprise bi tudd Yandé siège moo def conférence de presse pour leeral déclaration boo xam ni Mamadou mbay ñu koy wax Modou mbay commerçant marché Ocass da koo def di wax ne euh, ku ñuy wax soxna maam Xëri Mbàkke da ko jaay doole moom ak procureur te loolu entreprise bi weddi ko ndax moom amul problème ak maam Xëri Mbàkke entreprise bu tudd Yande Oil la amul problème daan fa ñëw di commander comme du euh, acheteur bu fiable du ku crédible ñu dindi ko ca liste ña nga xam ne dañuy jëflanteeg moom ci diw mu bëgg diw amul diw mu dem seeti un escroc qui s'appelle Mamadou Mouhamed Lo yabal ko fa Mouhamed Lo dem def commander leneen bu ma jëlee commande bi su yegsee ca bitig ba damay fay sur le coup ñu boole kook un de yande agent ba dem ñu wàcc diw gi à 500 500 bidons sur deux véhicules 1000 bidons ñu wàcc ko ba pare agent bi recouvreur bi taxaw di xaar ñu jox ko xaalis bi euh, Mouhamed Lo jaar ca biir mbitigu du Mbaye daw waa ji toog ca bunt ba xaar xaar gisut dugg ca biir ne du Mbaye ana waa ji mu ne ko waa ji dem na mu ne ko fa waa ji dem mu ne ko xaw ma ko donc ñun nous accusons Modou Mbaye de receleur nday sàcc la loolu moo waral nag mu génn di wax ndax nag euh, ku sa biir di daw boo jëmee foofa da ngay waaxu xam ne ni justice ci kawam la jëm si te l'entreprise Yandé fait confiance totalement à la justice sénégalaise ndax nag ci problème bii ma leen expliqué lépp Yandé moo gën a sonn parce que moom 1000 bidons diwam dem na 23 millions 500 mille dem na te jotagul depuis ça fait 8 mois kon Modou Mbaye buy wax dafa réewi làmmiñ rek te bëgg a te ànd koog nit nit kam ko àndal nag moom déclaré na moom personnellement ndax dafa dem Dakar di fa sàcc ak diw ñu jàpp ko sa même forfait la def Dakar ñu jàpp ko. ba ñu ko jàppee nee na moom ak Modou Mbaye ñoo likk affaire te su ngeen dégloo Modou Mbaye bu baax ci biir waxam wax na ba jeex nee na. Mouhamed Lo client wu soxna maam Xarim Mbàkke la déedéet Mouhamed loo dafa ñëw rek par confiance wax ne gaa ñi am naa bëgg naa bi bidons su ngeen ma joxee bu ñu demee convoyeur bi ma jox ko 23 euh, millions 500 mille bañ demee mu nëbbatu ko jaar ca bitig Modou bay ba daw boobaak tey yàlla jotul xaalisam jotul diwam kon du Mbaye dafa bari wax di wax rek waaye sàcc pire la ndax sàcc mooy ndeyi sàcc ndeyi sàcc bu amutoon sàcc lu am est ñun nag on prend toute la chose jox ko justice sénégalaise la ñu cay xaar li Yandé di xaar Yandé Charles li muy xaar mooy justice defal ko li nga xam ni moom lay defal sénégalais bu nga xam ni tey da ngaa sa entreprise jël ay jeunes di sa dépenser bëgg Sénégal dem ci kanam kon ñun ñoo loru Yandé moo loru Modou Mbaye loruwul ndax moom jaay na xaalisu jàmbur tëdd ci wëlbati ko bëgg li ko ab sàcc sàcc ba nag wax naa lu leer nee na moo ak Modou Mbaye ñoo bokk affaire bi donc ça soit nu le disons haut et fort, Modou Mbaye c'est un receleur c'est un voleur qui fait la grande gueule lii rek moo doon wax bi li lañ bëggoon ñëpp xam ko kon amul ak problème maam Xarim Mbàkke entreprise la amal problème ko leeralaat parce que man tey exemple lu yomb laa koy lañ koy tontoo ñun waaye yande dañu jël un convoyeur comme ni ma ko waxee léegi jox ko tous les documents yi nga xam ne mooy ànd suñu diw parce que ñun suñu diw dafa am qualité ba noppi ànd ak sécurité ba noppi buy génn ci signature yu leer lay génne presque trois à quatre personnes dañ koy signé léegi documents yi moo nekk nii mooy Modou Mbaye yi mu indi tous les documents tous les documents que Modou Mbaye a vous a déjà montré war na leen ko yéen sénégalais yi ni leen document yii la bon voilà donc voilà mooy document yi dokument yi turu Modou may newu ci defe naa facture yow mi moom yow li sa leer na de. voilà ok. facture facture bi. waaw Mouhamed Lo la ak waaw. mais dafa am décharge. nu ci Modou Mbaye jote dafa am xam ne entre Yande la. waaw ak ak ak ak ak Mouhamed. est-ce que merci. entre Yande ak Mouhamed ak décharge yéen jot ngeen xaalis léegi loolu. loolu ci loxo convoyeur bi la newoon. dañ ko ne téyeel ko téye ko soo ko téyee yegg ba ñu wàcc diw gi nañu wàññi sa xaalis ba pare jox la nga door koo joxe waa ji ñëw ne ko léegi ñoo ngi wàññi xaalis bi ci biir jox ma kayit yi ma jox ko waa ji génneel la xaalis bi sa waay innocent jël xaalis bi ka kayit yi jox ko mu dem jox ko du may jaar ci buntu bi ginnaaw ba dem. kon man nañu wax ne yande moom tamit mbir mi. def na ci erreur. déedéet du yande soo nee yande tu yaa ngi bëgg a jàpp le directeur général ca kaw le la le PCA ñëw ci euh, daax ba ñëw ci ñëpp déedéet. mais ki ngeen délégué woon. ki ñu délégué woon moo def yatus moom moo def benn juum. parce que jamono neexatul. mais na mu nit ko ci ne ñun ay taalibe lañ Tuubaa lañ dëkk. ay jullit lañ te ay murit dong la ñuy des. barke incha la Muhammad nit ki euh, dóor moo xew fii ci dëkk bi gis ngeen ni ko gaa yi di waxee. dafa ñëw taxaw mu ne ko sawaay jox ma kayit yi ma dugg ci biir. su ma duggee ci biir génne la xaalis bi ndax ñoo ngi weñ xaalis bi su doon man mii tànk ak tànk mbagg ak mbagg ba xaalis bi tege sama loxo. léegi yande li wax ci Modou Mbaye da ngeen jëflante. waaw da dem ba mu yàgg ngeen ñàkk confiance ci moom. waaw kon nangu leen jëflante ci ak waaw kon mooy wan ne entreprise bi am na benn expérience bu a mën a ñëwee ci jour boobu am ci moom confiance ba def décharge boobu ne ko demal. baatu baatu confiance boobu lañuy ñuy dindi confiance amul Mouhamed loo yow mii tey ma posé question yi boo demoon léegi ne damaa bëgg diw je veux 1000 bidons dañuy dem wàcce ko ma fay sama xaalis gaa yi chargé la ñëw taxaw mais mais te ñu fa tegoon sa gaz ce jour là xamuñu parce que nit ku ne nit la nit ku ne nit la da ngay jàpp par de confiance la ko waa ji def sa Mouhamed Lo là il a joué des tours moom it il a fait je sais pas la naïveté. naïveté nga ko mën tuddee problème a leer a gis ne entre Mouhamed Lo ñoo lëkkaloo. sàcc diw ki nga xam ne yéen moom ngeen délégué jox ko seen ay document mhm. te ko woon joxe li fekk jotul xaalis dem joxe mhm. euh, kooka. Euh, am na ci ay problème sérieux ba wax naa leen ci suma biir déclaration na ne ndeysaan dèjà nekkatul ci entreprise bi. ñun personnel bépp ñu métti lu ko. ndax xam nañ ak jubam. xam nañ ak jubam ndax il traité des millions et des millions. mais ci biir la bokk. mais non cest à kooku il a été entendu par la gendarmerie par la police. bi nga xamee ne jàpp nañ Mouhamed Lo à Dakar gendarmerie woolowaat na ko ba mu dikk ñu wan ko photo Mouhamed Lo il a dit sa c'est ce gars qui m'a triandé il a il a formellement léegi ma wax la lu tax yande jàpp ne euh, moo Modou Mbaye c'est un receleur Modou Mbaye da daan ñëw yande ñu xam ko ñu dem ba dindi ko ca liste ba ndax crédible joxatuñ ko diw waaw léegi yow su fekkee ne yow samay samay bagage mënoo ca jot loo jaaree ca kee pour jot samay bagage kon angle sous roche bu ñu man bu ma geddee boo ma la geddee yow en tant que acheteur doo ma ëpp fu la kon damaa war a gedd sa bagage ma ne mais géddul bagage ba dafa yebal Mouhamed Lo personnellement mu dem tra mu dem trompé fee indil ko diw ga mu fat ko ci place ta tax tax xam na ne diw ga diw diw yàgg la. biir vidéo moom dañ leen a boole. Mhm. na moom commande mille bidon. ñu jëflante ñoom ñaar mu ñoo xamante. à une valeur de vingt trois millions cinq cent mille bidons d'huile à Touba ku xëy andil la ko yàgg na ci diw yow ma koy jaay xam nga ko du may ñun Yandé mën nañoo jurer ci yàlla ni moom xam na ko tey li tax muy coow xam na ko parce que bu affaire yi tàmbalewaatee dina mu Mouhamed loo wax ko ne ko mu Lo xaw ma la parce que Mouhamed Lo euh, euh, tojaangi wii mu def Touba la dem doon ko def Ndakaaru ñu jàpp ko mu ngi ci kaso bi instant yi comme yëg na ne mu ngi ci kaso bi te yëg na ne na ko moo tax mu chargé soxna maam Xari Mbàkke mais soxna maam Xari Mbàkke séqul ak dara Modou Modou Mbaye man nga dëggal ne Yandé amoon na contrat ak Modou Mbaye depuis 2018 au au daan na ñëw di jënd comme ni ma la waxee moo la gën a xam yoon wax bay bu ngeen déggee mu wax day mel ni ku xamut foofa moo la gën a xam Yandé moom contrat la dina am contrat di liggéey ba mais bu amee contrat yi te crédibleut moo tax ñu dagg contrat ba amoon ngeen contrat loolu man du ko wax parce que man je le porte-parole de Yandé su loolu soo ko bëggee xam dangay dem seeti les comptables man li ma bëgg a wax daal mooy Yandé déclare officiellement du mbay de receleur nday sàcc la ci lu leer. ndax nag ñun ñoo gën a ñun ñoo ñun ñoo gën a pene ñun ñu jotul ñun ñun ñu on a perdu bi 1000 bidons d'huile et notre vingt non 23 millions 500 mille kon tey bu bu bu bu pen amee ñun ñoo pene. Modou mbay pénéwul ba naan dañ ko jaay doole. convoyeur moo amul benn poursuite judiciaire bu am ci moom. ah oui il vraiment euh, dañ ko sonol sonol sonol gendarmerie sonol na ko lool ginnaaw bi la nga xam ne ndekete sa gaalaa ndeysaan du ci dara dañ ko trompé waaw Modou Mbaye da ko trompé. kan fekk si bureau bi maanaam boo ñëwee. boo ki boo ñëwee euh, boobu kooku bon comme c'est en conférence de presse du ñu fi nekk di wax diwa mais c'est un collègue qui a vraiment renvoyé parce que véritablement dafa def erreur te erreur nag ku ne la dal ci àdduna kooku il traitait des millions nest pas te dafa am chance sax chance bi mooy effectivement il a reconnu le gars bi ko gendarmerie woowee nee na kii la te le gars en question ki sàcc càcc gi ki sàcc càcc moom il a il a reconnu formellement que moom moo dóor affaire bi. jàppoon yombul parce que <laughs> ah, Mohamed Ndoye ñëw rek ñu jox ne ma 1000 ñu jox ma 1000 bi na doole ak cachet yi kii te toog kay la xam. non dama la wax ne la. yow mii tey boo ñëwoon yànde. ne damaa am commande bu 1000 bidon man damaa bëgg diw mais suma xaalis mu ngi suma place léegi da ngeen may wàcceel diw gi sur place mais ki taxaw indi diw gi bokk yànde nekk élément de yànde ah. moom la ñu délégué financièrement mu war a récup man dama koy joué yenn saa yi on m'appelle on me dit àndal ak soo demee man mais du doo bougé tànk te joxoo ma xaalis bi tànk ak tànk lay doon. dama lay xoolee ba tuuti. li nga wax waay problème fan la. waay yéen ki ngeen xam moom ngeen délégué woon. jox ko mhm. seen ay documents. Mhm. donc kooku moom moo kooku. dañuy kooku ba kooku kooku euh, Modou Mbaye nee na dafa dem police ñu téye ko fa mu dem juge bi libéré ko le gars il a entendu bi ñu ko dégloo par les forces de l'ordre ñoom ñoo xam ne kii parce que ñoom bu ñu la dégloo dañuy xam c'est pas Yandé moo ko bëgg a setal non non non non non kooku bu ko Yandé bëggoon a setal tey du ñàkk liggéeyam ki may wax nii bu fekkoon ne Yandé da ko bëgg a setal da koy setal ba noppi téye ko def ko employé mais instant bi ni bokkatul bokkatul Yandé il n'est plus employé de Yandé kon il a pour ça n'est-ce dañ ko nax comme ni ñuy naxee nit ñi fii rek partout au Sénégal waaw mais nag lii li nga xam ne mooy mbir mi dëgg daal sàcc bi nga xam ne mooy sàcc bi moom Mouhamed Lo nee na càcc gi moom ak Modou Mbaye ko bokk. yéen foofu ngeen bëgg a sukkandiku ba taxal Modou Mbaye. ah maanaam kañ day toxal mu ne. mais lu jiitu loolu yéen lu jiitu loolu yéen ak accusé ngeen Modou Mbaye lu jiitu ñu jàpp bon payeur moo tax mënutoon a jot suñu diw. comme c' est pas un bon payeur du jot suñu diw parce que nag bu ñuy jaay c' est pour avoir de xam nga yàlla ñaata nit ñoo fay liggéey y' plus de cent jeunes là-bas on emploie plus de plus de plus de cent vingt femmes pour laver des bidons c' est million millions par mois ñun ñoo ëpp employé fii ci région de Diourbel et mën naa wax ci Sénégal bokk nañ ci ñi fi ëpp employé ci ay jeunes yu dëkk Touba. on se permet un un bon bon matin un commerçant se présente jël benn élément def ko sàcc mu ñëw sàcc gaañi ñëw jox ko diw gi ñun ñu perte suñ diw perte suñu xaalis moom mu ñuy accuser mais euh, ah, ba léegi da nga jël ki mu doon wax maam bëgg a jël maam xëriñ teg ko ci ginnaaw fauteuil bi bëgg a teg Yandé te est moom ak euh, maam xëriñ amul problème boo xam ne foofu lii nii il faut am na il faut il faut nga am loo xam aussi. Euh, Modou Mbaye il a voulu vous balaguer yéen da leen bëggoon a nax. Ah moo tax moo tax moo tax. ok moo tax euh, ma bëgg la wax ni la euh, Modou Mbaye il il n'a pas problème officiel ci li nga xam ñun waa Yarde ak soxna Mame Khary Mbacké il veut rendre la chose sa tête euh, bizarre wala pour tromper des individus wala pour manipuler la masse moo tax mu tudd ci maam Xari Mbàkke waxtaanam mun naa la ko tegal léegi dafa wax ni maag maam Xari Mbàkke dañoo am ay wax deuxièmement mu ne maa ngoom sax amuñuy wax ab kiliyaanam bu mu jël diw laa amal wax yaa a beaucoup de y a beaucoup d'incorrection de contradiction ci li wax mais comme jot gi mayee ko duñ ci ñëwaat xoolal euh, maam Xari Mbàkke li tax mu dugg ci c'est le président directeur de Yandé moo moom du ci génn waaye nag waaye nag lam ñu bëgg a gëmloo moom Modou mbay bopp buy réfléchir du ko nangu këyit yam yor Yandé ci ne maam xëri Mbàkke niwu ci vérifier këyit yëpp Yandé ci ne kon Yandé la amal problème c'est pas maam xëri Mbàkke diw gi boobu mbay léegi yéen a yor diw gi Modou Mbaye ah. moom moo yor nit ñi. léegi yéen lu ngeen di xaar dem jël justice la ñu xaar ñu doole gënuñoo dëkk Touba waaye nag justice lañu gëm yaakaar ne danañu delluwaat ci suñuy droit. ah oui. non non en justice il y a il y a a trop du trucs qui se yoo xam ne ça peut-être mën nañ ko libérer mu toog këram fekk a attend xam na li tax. moom biiram day daw moom Modou Mbaye. moom nee na mbir mi fi mu toll dañ ne ko un ko euh, euh, loolu moom il risque gros ñun au lieu plus mais il plus parce que est un receleur sàcc la. mais loolu moom après yow koy leeral léegi. oui. Euh, sàcc la ak sàcc après loolu yow la koy leeral mais document yi nga xam ne moom la yor entre Yandé ak Mouhamed Lo. ñii am na ci ci ci commentaire yi ñii ay false la dañ ko sàcc wala nangam yéen est-ce que da ngay confirmer que ne document yooyu moo ko may yor. ñoo bokk ndey ak baay. le pourquoi sa waay dafa nax waa ji jël këyit yi jox Modou jaar ci buntam ginnaaw ba dem. d'accord loolu la Modou xëy présenté këyitam ne samay këyit a ngi nii te moom moomut këyit yi sàcc bi moom këyit yi sàcc bi sàcc diw gi moo moom këyit yi mais noo Modou Mbaye mooy ndey sàcc. këyit ci yéen la jógee. mais effectivement déggoo li ma wax waa ji la téye ca buntu ba mu ngi mel ne nit ñëw di fay facture rek nga ne ko bàyyil ma fayal la dugg ci biir wër ko wër wëndeel wër mbir ba dem sa yoon c'est que ça. merci c'est bon. amul euh, euh, daal ngi am métit lool euh, vraiment parce que ñàkk sa cent un mille bidon diw ak sa vingt trois millions cinq cent mille wëlbatiku nit jóg taxaw jël micro di la accuser nëbb sàccam nanguwu koo tudd ca wax ja ndax sàcc ba moom da koo tudd ca Ndakaaru moom nee na Modou mbay la bokkal deal bi kon moom Modou Mbaye receleur la lii rek lañ amoon pour wax